ñoo ñii day bu sa xel nekk ci génne leen jitaay bi ndax ñoom day dara du seen métier lu dul wéetal ma guddi ak bëccëg te sama jëmm rek a tax ñooñee ñoo di ay murid safu la wala ngay seetaani mbiram te fekk safu la moo tax li ñu daan jiital dañuy fexe ba ki ñuy topp saf la mooy tax nag nga mën a topp kooka sëriñ Touba nag yonent bi gi mu ko saf ak bëgg gi mu ko bëgg mbindeef moom réeréetu ko ndax ku jël léppam jox ko ko jël féppam jox ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba luy dal nit ci xeet goowu nangu nga mu dal la loola mbëggeel mënu koo weesu bu mbëggeel gu mel noonu amee nag topp cay tegu borom bi tabaraka wa taala mi ngi ni koy wax ni li gën a am solo mooy mbëggeel moo gën a am solo ci mbir yi mbëggeel nag ñaar la bëgg gi nga bëgg ak gi ñu la bëgg gi gën a am solo nag mooy gi ñu la bëgg bëgg rasulullahi baax na lool bëgg yàlla baax na lool waaye fexe ba yàlla bëgg moo ko gën a baax fexe ba yàlla bëgg la it nag ni ñu koy defee nii la borom bi moo waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko am teg toppam wér ba jeex ca ba niroo ko dof ab murit lañ ko tuddee woon wala tatrudi alladina yadcuuna rabbahum bilqadaati walcasiyi yuriduuna wajhahu ñooñu nga xam ni dañoo bàyyi woon seeni kër bàyyi seeni njaboot bàyyi seeni mbokk ñëw dëkk ak rasulullahi ci sufaam ci jàkkaam du ñu am lenn lu ñuy sol sax far ñooñee yàlla ma nga leen tuddee woon ñu namm yàlla maanaam ñi nga xam ne ni ñoo di ay murid aqiqatan kon baatu murid lu ñëw la ci alquran te ñi ñu leen seexaleel mooy ñi yàlla ni dañoo bàyyi woon lépp ba kenn bëggatul a jigéeñeek ñoom dañoo bàyyi woon fépp ba kenn bëggut a bokk ak ñoom goon ci kàngam yi nga xam ne dañoo bëggoon àddina ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon ñaan rasulullah ni ko danoo bëgg nga wutal nu bis boo xam ne nii bu nu lay seet seeti da nga nuy may sunu wajaansu bopp borom bu buyu xeeñ yi bañ cee bokk loolu yi la jël nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu ba aku xiram ci nit dugg ci diine ji aku xiram ci kàngam yi bokk taxoon na mu di leen bëgg a nongul loolu ba yàlla jàjj ko nag ni ko ñoo ñii day bu sa xel nekk ci génne leen jitaay bi ndax ñoom day dara du seen métier lu dul wéetal ma guddi ak bëccëg te sama jëmm rek a tax ñooñee ñoo di ay murid kon baatu murid bu nu ko doon teg dañuy wax ni moo di al islaam al xaqiqi lislaam bu dëggu moo di murid julit piir moo di am murid ndax li julit di def ba tax ñu tudde ko ab julit mooy tàbbi ci biir murid murid dolli ca yëfam nag soog a tudd al murid dëgg-dëgg lu ñuy wax jullit tigi lenn lu lu muy def te murid du ko def amul kon bu murid defee leneen loo xam ne ni moo ca wéet day tekki ni mooy jullit bu piire mooy jullit tigi mooy jullit bi nga xam ne meloy jullit dafa war a mat ci jëmmam dara ci ak njar du ca nekk par parloo gu ngir par parloo bu muuma par parloo bu politique yooyu yépp day génn ci biir pas-pasu murit Cheikh Amadou Bamba bi mu defaree lii nu koy askane ñu di ko wax ak murit loolu yi daa génnoon ci ak moom ci moom lim fi fekkoon ci ay ngir ci ay turux suufiya mënee su ta xam Sëriñ Tuubaa kan la ci fararoon kenn xamu ko woon liñ fi fekkoon ci ay yëngutu mësee su ta xam kan la ci faraloon ngir lan dafa am ku ko ñor ba noppi ki ko ñor mooy kan mooy yàlla kooku ko ñor di yàlla nag mënu koo jaxaseeg leneen ndax lépp ci cirque la bokk bu ñu jëlee baatub cirque dafa yaatoo yaatu ba nga xam ni bu nit ki nekkee mu waxi dëgg-dëgg dootul mën a boole yàlla ak leneen ci biir mbëggeelam Sëriñ Tuubaa kon moo doonoon al mu waxi tigi bi nga xam ne nii dara mënatu ci wan a boole lu baax rek mu boole ko ci boppam lu baax lu ne boole woon na ko ci boppam lu bon lu ne génne woon na ko ci boppam bu ñu ko masaa laaj sax ay ngir day wax ni moom ngir yépp ngiram la muy maliki anafi ahmadi shafii nee na lépp la buñ ko ne tarixa yi mu ni tarixa yi yépp la tiijaan la xaadir la zazali la masaiqi sayiduna al jilaani wa zazali wa maahu tijaani ngir lan lu baax lu nekk sëriñ tuuba jóg na parce que yéenee jël ndax looloo ko tax a jóg looloo ko tax a jóg ngir yàlla la wéetal te boolewu ko kenn kon lu yëngu jëm ci yàlla moom day wane ni yëfam la moo ko moom ba bi muy sant xiiwalu borom bi ci loolu dafa wax ne gaa yu baax yooyu fi jaaroon li ñu amoon lépp yàlla mottalil na ko ko teg ko ci loxoom loolee la ko may mooy dafa mucc ci far dafa mucc ci wéet ak benn pas-pas budul pas-pasu wéetal borom bi tabaraka wa taala kon murit baat la boo xam ni am ngir la ngir moo xam ni mu leer naññ la ay jubluwaayam it weesuwul bëgg a defar doomu aadama doomu aadama nekk gor nekk di jaam nekk di gor nekk di jaam dafa mel ni ñaari baat yu safaanoo la waaye ñaari baat la yoo xam ne ni itam ñooy ànd doomu aadama ju nekk nekk na loolu bi nga wootee nekk gor lan moo lay tax a def gor mooy da ngay liibër ci njaamu ñeneen ñi dem ci borom bi tabaraka wa taala daal di fay tudd jaam jamono boo deenee jaam tigi te mooy wéetal yàlla kenn moomula ci moomkat yi ku dul borom bi bu boobaa jaam nga fi yàlla waaye keneen kuy moomee nag gor nga fa wetam sëriñ Tuubaa nag bëgg a goreel nit ba nit nekk gor soo xam ni kenn du ko moom kenn du ko yilif ku dul ki ko bindoon loolee la ñuy tuddee almurid moo tax boo gisee tubaab yi bi ñu jógee seen jubluwaay bépp mooy far murid moo lu leen murid war a def mooy bëgg nañoo def ñépp ñu nekk jaam murit bëgg a def ñépp ñu nekk gor ñooñu kay ay xulookat lañu ñooñu ñaar kay bokkuñu xalaat kii dafa bëgg a defar nit mu nekk jaamam di wéy mu di ko defloo di ko bàyyiloo di ko toogloo di ko taxawloo kii bëgg a def nit nag mu nekk gor soo xam ni yàlla képp a koy yëkkati yàllaa koy toogloo kooki bu noppee ci nit kee dootul jariñu saa bu rëccee loxo yooyu rek kooku dootul jariñu moo tax ki sëriñ Tuubaa defar bu fekkoon ni nii kiy wut nit sax xamoon na luy nit wala xamoon na luy njariñ day ànd ak sëriñ Tuubaa ci defar gi muy defar nit ndax bu noppee dana jariñoo nituk sëriñ Tuubaa kooku ndax li gën a am solo mooy nit ku bari njariñ lu mu faalewul ni njariñ la kooku bu ngeen dajee dala koy jox da nga koy jariñoo ndax yaa ko fonk yow mi fonk àddina fekk nga ku bari àddina te bëggul àddina bu boobaa waral nga koo jàppale kon see Amadou Bamba dafa bari woon àddina waaye nag ku bañoon àddina la ku bañoon àddina la waaye ku bëggoon àddina la bañoon na àddina ji gaa yi yor mais bëggoon na àddina ji borom bi moom ngir yëg gu mu yëg ni ki moom bu mayee doytatu ko nangu waaye ki àbb mbaa mu fëkk bu mayee nongoos ko kon ku waa àddina mayoon àddina nangu nañ ko bis ni ki tey waaye yàlla mi nga xam ne nii moo doon maye ca jamonoy Lat Joor doon maye àddina Lat Joor ak ña mu àndaloon defee ni amoon nañu àddina ndekete amuñu ko woon kookee ñu doon wooyee ndox ba mu naan xaaloo safihun li kawni lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwa arrahmani sil qadari ndekete kookoo doon jël àddina kookii nag lu taxoon da doon xaar ba ki tabax àddina moom ko teg ko ci loxoom dootu ko ñàkk ba ila yow mi yubaasun bu nit déggul loolu nag ni naa fexe ba tas li Sëriñ Tuubaa tabaxoon ndekete foo koy tase foofaay tabaxukaay gu gaaw ga yàlla lu mu tabax balaa tabax baa jiddi nga ni naa ko tas foo koy tase rek fa la gën a gaawee nga yont yàlla Suleymaan dafa amoon jagleeg di gis malaayika yi malakul mawte yépp a yemoon ñépp a ko daan gis am benn xolli bit boo xam ne nii daa ragal dee lool moom dëkk ci suleymaan ni ko dama bëgg nga waxal ma ak sa xarit bi bii ñuy wax malakul mawti mu fexe ba ba ma fi mu mu ni ko loolu de xaw ma nu ma koy defee mu ni ko ni nga koy defee mën naa la koo dicté mooy da nga may jël li koy wax kat ndekete Souleymane am na gan googu ñëw na toog ci réeg bi gan gi moom waajaa ngi wax xam naa sax déggante wu ñëw làkk waaye mi ngi xool waa ji rek mu ni ko nu may def mu ni da nga may jël boole ma ak jinne yi ñu sànni ma ca géejug siin nga fa àddina yam ndax ma mucc ci waajooju ndax dégg naa foo nekk rek ku nekk ci biir dëkk bi mu fekk la fi jël la Souleymane def loola malakul mawti tàggoo trois minutes mu dellusiwaat Souleymane ni ko loo doon xoolee sama waa ji mu ni damay yéemu ci dogalub yàlla ndax jamono bi may toog ay minutes wala ay secondes ñoo des ci ma rey waaj yi ca géejug siin ga te xaw ma nu yàlla yi lijjantee boobu problème mu ni ko anama mu ni ko rey nañ ko fa léegi kon ndegete yàlla li mu xas tabax ci biir màbb gi nga koy màbb ci lay jëme kaw muridisme itam bi si Amadou Bamba jógee yëkkatee ko noonu tabax ko kaw tabaxal lislaam ak goreel doomu aadama te doomu aadama mënta gore mukk mukk mukk feeg wéetalul yàlla ni mooy yàlla feeg wéetalul ndawul yàlla li muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu di yonantoo mu jox ko boppam di di dégg ci moom di bàyyi ci moom lu dul loolu nekkoo gorus dara kon muridiya loolu lay tekki moo di dafa nekk gor soo xam ne ni da ngay gore faw ci yeneen yi ci moomeel yi xaniitu billaahi anil arbaabi wa bi muhammadin anil asbaabi sëriñ tuubaa nee na mboolam yi moome yépp mucc naa ci seenu moomeel yàlla rek ma moom waaye ñi ñuy jàpp muy sabab bu ñuy jaar di demit rasulullah moo ci sama sabab keneen du sababam ko kon teel naa goree lool ci boppam kon kooki mënta juboo ak ñi nga xam ni seen jubluwaay moo di nekkal nekkuloo doomu aadama yi ay jaam yu ñuy war guddi ak bëccëg sëriñ bi nag seet ni amul lenn lu nit war a mën a sangewoo mën a làqutu foofa ba mucc ci pittangali gaay yooyu lu dul dellu ci alquran ak sunna alquran ak sunna jikkowoo jikkoy alquran melowoo melay muhammad sallallahu alayhi wa sallam lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu sëriñ tuubaa ba mu jógee rek li mu jëkk a wax mooy ni moom yéenéem moo di yeesal li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon léeg-léeg nit wax ni nañu delluwaat ci sunna ak quraan bokkut ak sunu wax jii nag delluwaat ci sunna ak alquran ci sunu jamonoy tey bu ñu ko waxee mooy nañu bàyyi li mag ñi nekkoon te dellusiwaat ci li gaa yi wax léegi bokkut ak dellu sunna gi sëriñ Tuubaa ga loola moom mooy dellu ci alquran alquran di la tere alquran di la digal ci lu dul ngay gendeeku ni nit a ngay def mbaa nit a ngay bàyyi yàlla rek kay tax ngay def yàlla rek moo tax ngay bàyyi sëriñ Tuubaa daal di jóg nag dugg ci yoon woowu di yeesal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëddoon waaye lu tax daf koo defoon ci biir mbubb suufiyanke xam nga suufiyanke lépp lu muy def dafay làqu lennam lu ànd ak feeñ amul ba loolu léeg-léeg ñu tuumaal ab suufiyanke yàgg na nag bu njëkk daanañu tuumaal suufiyanke di ko tuumaal ba xëy ko rendi di ko tuumaal ba xëy ko def ci kaso bi ngir du weddi ñi ma wut a weddi yàlla xam na ni xam na ni li ñu koy tuumaal amul yàlla xam na ni mën naa taxaw awakaab boppam weddi waaye amul jot ga yàlla rek la ñu gëm sëriñ tuubaa bi ko fi tubaab yi jële li ñu ko jiy lépp defu ko mën naa taxaw ni defuma ko daal di mucc waaye nee na amul googu jot xam na ni yàllaa bind gaaye yàllaa ko bind li yàlla dogal day am naka jekk loolaa daan tax waaye naka jekk itam jamono daanañu fekk lu weex tàll ñu di la gëm loo ni daa ñuul ba nit ñëpp gëm ni daa ñuul loolu mooy li dal yoonu suufiyanke yi xam nga murid yi ci Sénégal ñëpp jàppe nañ leen ni nit la ñoo xam ne ni duñu jaamu yàlla donte lee ñi ci nekk ci jaamukati yàlla mësee su koo gis ci wenn xeet amul waaye daf koo defoon nag akuk nëbbu akuk ruqe goo xam ne ni du ànd ak di ko manifester ci àddina bi mooy tax bu ñu la tuumaalee mu leer benn jigéen tontu na ci benn tontu ren boo xam ne nii bu ma yéem la ci jidda dañuy def benn waxtaan ci Serigne Touba ci daayira bu fa nekk waxtaan wa àgg am benn mbokk mu fa nekkoon ni moom daal jàppoon na ni murit yi xam-xam amu ci te nag Sénégal la dëkk ma ne ko loolu yaa ngi ñëpp a yem noonu lañ leen yare xam nga ñi bokkul ci yoonu murit yëpp dañu leen a yar ni murit jàngul léeg-léeg nga daje cee kenn kuy conférence xanaa boog loo dof dof xam ne waa ji conférence am na fu mu doon jànge am déet boo gisee Moustapha Abdourahman muy defi taalif di wër àddina bi mais war ngaa laaj ni am na fu mu doon jànge xanaa ñi ko doon jàngal mën nañoo jàng nag alal akal ah waaye waaje ba léegi dof na ni ba léegi kenn jàngu ko waaye seen soxna su baax tontu fa tontu boo xam ne wallahi xekma la boo xam ne yàllaa ko ko yor muy soxna Ndey Mbàkke doomu Seex Awa Balla moo dugg ca waxtaan ndax booba saal bi moom rek moo ciy jigéen saal bi fee dell moom xam naa jikkoy daanu ko tax mu daal di attaqué waa ji ni ko li ma leer daal mooy sax bii nu toog yaa fi dul murit yaa fi firul iji te wallahi noonu la waxee dëgg mu ne ko yow képp yaa fi dul murit yow képp it yaa fi firul iji kon nan nga mën a gëmee ni murit yi jàngu ñëw koy waroo ko woon a wax na yow li nga gis yëpp mën a jàng yow kay fa nga jógee war nga war a seet ba xam lu tax yow feroo iji xoolal boobu tontu bu rëy naka jekk nag loolu mooy li am dañu luy gëmloo ba gëm loola loo xam ni yow sax boo taxawa nag sa xalaat di nga ko weddi waaye ba léegi doo ko weddi yow da ngay wéy rek di ca ànd gaa yi jàngul yaa ngi dégg daara yaa ngay bari ñi nga ci dajeel ñëpp mën a jàng ñëpp mën a jàng wala boog ñëpp la raw ñi nga ciy dajeel ci conférence yi àddina béeg fi ngay dem ci dëkk yaag ñëpp la raw waaye loolu gëmloo nañ ko ñëpp ba ñëpp ko gëm xam nga ca madinatul munawwara wootekat yi gëmloo nañu ni mu tuubaa duñu ay jullit ay nit a ko fa wax bi waaye ñoom it ñoo ko tey ba université ba ubbee ak léegi mësuñoo gis étudiant boo xam ni turam tuubaa ca nekk te mokkalul quraan ba bisub tey mësuñoo gis examen boo xam ne ni juróomi murit nekk na ci te jëluñu premier ba léegi nga gëm ni nag murit moom jàngu mais kon kay nit moom mooy kan nit na defaraat boppam te li ñuy bëgg a dugal ci boppam mu taxaw yël bu ko xam ne amul ba yëlëb naa ko ci bopp benn waay rek mu ne dégg naa suñu laa daal jàngul woon ma ne ko mas ngaa déggi waxama mu ni ma waaw ma ne ko lu mu daan wax mu ni ma alquran ma ne ko alquran fu mu toll ci xam-xam ah alxuraan da ci niveau xam-xam mooy ci niveau université boog la nekk waa étudiant boo xam ne nii la waa université yi jàng nag la mokkal te nee ñu moom jàngul fu mu jaar. loolu mooy wax yu naka jekk Serigne Touba waa këram lu ñu leen jiiñ wilaya la xam nga nit kuy wax alxuraan te nee ñu jàngul wilaya mënu ko weesu naka jekk itam nag bu ñu dee tuumaal nitu Serigne Touba dañ lay wax ni la même ci turu suufi yi sax. dañ lay wax ni la ku bokk ci yoon wi bul siyaar ji bakk sëñ Tuba xam nga loolu grâce la ndaxte ku ci bokk mooy kan bul leen siyaar yi mooy da ngaa gëm ni wàllu yu la ñu ndax yow li ñu la tere mooy bul siyaare wàllu yu dund ak wu dee xam nga boo gëmoon ni du wàllu yu kon doo ko siyaare ji kon ki nga xam ne bu lay wàññi sa grade ci wàllu yu lay yeme lay yem maanaam ki gën a tuutal sëriñ Tuba moo ko yemale ci wàllu yu boroom xam-xam yépp nag loolu la ñu gëmloo nit ñi ba ñu gëm ko loolu moo indi sax ba xele yi dem def ci seen bopp ni Sëriñ Tuubaa nu mu taxee woon ci sunna te moo ne mësuñoo yëg ni Sëriñ Tuubaa ngi dox ci lu dul sunna dunduk Sëriñ Tuubaa sunna moo fekk ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa moo doonoon sunna ba lu ko jigee doon sunna nit ki lu mu tax ba nit ci ràjj ku dend ak moom ku ruufoog moom doon loola ñi doonoon Sëriñ Tuubaa ñëpp dañoo doonoon nitu sunna dund dundin woo xam nit mësta dunde loolu maam Cerno Ibra Faati bi muy sañ ci Daarul Muxti fu ñu daan roote jum ndox ay Touba ay Ngaabu ay Njurbel waa xoolal boobu distance ba noppi mu ni dëkkam deesu fi tiim di julli mais tark yi mënta weesu foofu kii kay li ko saree am mayeen sax nee na du ma ko jël saree am may na koo kii nag mu tiim waaye nee na du jël loolu du jël yomb yomb yi sariya yi ndaxte Amadou Bamba dafa tere woon ngeen di jël yu yomb yi dafa tere woon ngeen di jël yu yomb yi Cheikh Abdourahman Lo ñaata rakka la daan julli par bis ñaari rakka yoo xam ne alxuraan lañ ciy wàcc ba mu jeex loolu sare a tegu ko kenn te du wàññi dara ci njàngaleem bëccëg mi muy jàngale xam nga lu neexoon murid yi jànguñu ñun la waaw ñi ci jàng ñu ni sama kër baay lañ doon jànge diw sëñ Fallou bur woon ak sama baay du mën a jàng sëñ Modou Moustapha sama bàyyee ko jàngal sëñ Mbacke Bousso sama bàyyee ko jàngal maam Thierno Ibra Fati sama bàyyee ko jàngal sëñ Muxtaar Binta Lo sama bàyyee ko jàngal Cheikh Abdourahmane Lo sama bàyyee ko jàngal Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Cheikh sama bàyyee ko jàngal Cheikh Mouhamadou Lamine Diop sama bàyyee ko jàngal Cheikh Moussa Ka sama bàyyee mais yii boroomi xam-xam yoo xam ne nii kenn ci mësta xam ne wàccoon nañ ci sa biir ëttu baay waaw kon nag loo mën a gëmee ni nag murit jàngul murit jàngul amu ci benn tund bu am boroom xam-xam yu dajaloo ca tund woowu yu toll noonu waxuma laa ab dëkk ba bisu tey it leer na ba bisu tey bii nu toog boroom xam-xam yi wax naa ko barki démb ci émission bi ñuy def di ko ubbee ay xasiida yu waa kër Serigne Touba def yàlla xam na ni li li ñu ma indil ci xasiida kenn xamul nu mu toll ña ca mag fanweeri at la ñu am ña ca mag fanweeri at la ñu am ba bisu tey ñu ngi ci daara ji jàng te jooja daara moom kenn déggagu ci télévision gisaguñu leen gisaguñu leen ndax bokkuñu nag dañoo bokkagul lu ko waral mooy ku bokk ci sunna doo bokk doo bokk boo bokkee ci waa àddina bokk ci waa àddina waaye boo bokkee ci waa sunna moom doo bokk gis nga ñi ma leen waxoon ni ñoo di murit muy ahlu sufa gis nga ni leen waa àddina doon naqe dañoo bëgg a jege yonent bi gaa yi ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii dañoo xeeñ nañu ma sori nañu nuy sori ber leen ba yàlla tëkk ko ne ko ni gaa yooyu nag sori nañu waaye ñooy samay gaa yi ba léegi itam murit silviseegul du bokk du bokk xam nga du bokk googu tubaab yi ñoom li ñu ci jublu woon mooy xañ murit akam doomu aadama ji li mu la bëgg a xañ day wut ay lay day wut ay lay yoo ba yu dajaloo ah murit yi bëggoon naa leen dimbali waaye dañoo jàngul waaw ñu fexe nag ba dañoo jàngul nga gëm ko fexe ba ñëpp gëm ko ñu def ci campagne def ci lu nekk coow ci lu nekk fexe ba ñu nit ñi gëm loolu boo ko gëmee nag sa àq dootul ñëw ndax lii tax a am amoo ko waaye nag jàngukaay yu mag yee moom du ñu wax ñooñu ñoom xam nañu luy muridiya kon si Amadou Bamba ba mu yàggee liggéeyal sunna waxuma sax si Amadou Bamba waaye ñi mu doon dundal defar leen ñooñu ñoo doon dund sunna boo xam ne ni ñi ñu nekkaloon mësuñoo xam ne nit dina dunde noonu sunna ndax koo ci ma sa dajee rek naw na xam nga li coow yi bari bari loo tuumal tuumalu murit bul dajeeg benn ci ñoom kenn ku nekk réew mu nekk ka nga ca njëkk a dajeel ka dëkk ak yow jóge ci sëñ Bamba nekk na sangub dëkk booba kenn ku ne ba sëriñ Tuubaa yabalee gaa yi ñii dem Kajoor ñii dem Bawal ñii dem Saalum kenn ku ci nekk fa mu la samp dëkk ba nga nekk tund wa nga nekk ña fa nekk yow ay seen sang ci diini kon kay fa ñu doon balloo am na lu fa nekkoon la fa nekk na gaa yi dañ ko waroon a seeti dañ ko waroon a seeti si Amadou Bamba da doon defar diine waaye da doon defar àddina da doon defar àddina boo xam ne nii nit dina ci mujj nee naa leen même politicien sax bu xamoon li li Serigne Touba bëggal li ko li ko Serigne Touba bëggal day bëgg Serigne Touba. xam nga ki Serigne Touba defar mooy noppal politicien xam nga murit bi bu bu jotee politicien bi lu ñuy jotee xam ngeen ko mooy li ma liggéeyee France ba indi ko ci réew mi. mbaa ma liggéeyee ko Italie ba indi ko ci réew mi boo ci dee jël li nga ciy jël jël ko wàññi ko wàññil ma ngir yàlla li nga ciy jël xam nga loolay coowul gaa yi fu gaa yi xëccoog ñoom lu ñuy xëccoog murit ba mooy li ngay jël ci sama yëfi bopp yi dimbali ma mu wàññeeku. keneen ku dul moom nag dara naan subvention bi ñëwagul aide bi agseegul waaye kii ngay wax dëgg yàlla waaw kii lay laaj prêt bi. wala ki lay laaj subvention bi moo ànd ak yow wala kiy liggéey lu ni gaañ ñu ne jël ci tuuti bàyyi maag li ci des kan moo ci ànd ak yow kooku kooku moo ànd ak yow moo tax benn coïncien dafay ñëw ñuy wër Touba ba mu àgg dem kër sëñ Saaliwu ca Ndokaar ba mu ma ne ba mu ñu dikkee di ko seeti sax mu ni Ndokaar a nekk damaa tiit ndax xam ngeen Koweït ak na mu civilisé Koweït ak ni mu avancé ci wàllu bâtiment yu rafet akub leeraay la yóbbu na nag ca ndookaa nag mën naa am sondeel bu leer doo ko fa gis ñu dikk fekkati sëriñ bi ci néegum ñax boo xam ne ni bisaab baa ngi sax ba ci bunt bi ñu yendoo fa ndekete moom looloo ko gënal ba nu génnee ci bisaab bi musumi yi dàllam xaaxaam yi jam ko ba nu dellu siwaat Tuubaa wër nag barab yi ci Tuubaa yépp mu ni ma ku defar lii ma ne ko kookee nu fekk foofee mu ni ma xam nga li am fii mësul am ci àddina bi booba laata sunu mbokk mii di daan soo ko di def li mu doon def te yoonu murid du ko fàtte mooy dugal Serigne Touba dugal liggéeyu Serigne Touba ci biir monde monde bi yal na ko ci yàlla fay moom itam loola moom mu wax loolu mu ne ndax liggéey bu toll nii fa ma dëkk ak li ñuy bari bari ay milliards ku fa liggéey lu toll nii ci lislaam amul ndax ku ci nekk boo amee ay milliards mën naa am nga dindi cent millions de dem tabaxal ci yàlla jenn jàkka du ñuy yéem ci àddina waaye nag bis boo demee kër waaja xam ni borom kër gi war naa tabax jàkka ci rafetaay ak valeur waaye ñëw ci néegum ñax bu jërul million te tabaxal yàlla milliard kii moo fonk yàlla kii moom saraxul yàlla moom daa jël li mu am jox yàlla dese tuuti nee na ku dul moom nag dafay sarax yàlla sarax yàlla mooy tabaxal sa bopp ba mu jekk méebale ba mu rafet xëcc ci lépp ba mu jeex laal sa mbalaan ci bunt ba naan def leen ci jàkka ji gaa yi dimbali leen ci jàkka ji jàkka ji kay du àgg ndax sa kër ngay tabax sa kër moom àgg na bu yàgg ba ñu méebale ko kooku moom daa bëgg kay gaa yi ñëwal yàlla mu deseel ci tuuti dal boppam Cheikh Saliou Mbacke ba bisub tey néegam ya àggagul Cheikh Mourtada raaxagul këram ku mu neex nga dem paas suba seeti ko ba bisub tey raaxagul kër ga waaye nag ñaata milliards la ñu defal yàlla ci ay jàngu ñaata milliards la ñu defal yàlla ci ay tabax ba bisub tey gaa yaa ngi laaj nag ndax murid yaa ngi liggéeyal lislaam gaa yaa ngi koy laaj waaye waaye bâtiment yi waral na leen a tontu nag institut yi waral na leen a tontu waaye soroor yu gudd yi waral na leen a tontu boroom xam-xam yu mag yi nu wër waral nañoo tontu waaye ba léegi rek gaa yaa ngi laaj fan la murid nekk ba murid sax a ngi laaj fan la sëriñ bi nekk ci sunna fekk sëriñ Tuubaa ni bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi sahabin mawrusi wallahi ak lu jamono yàgg-yàgg liggéeyal alquran ak liggéeyal sunna mooy doon sama ndonn téef waaye du doon wurus ak wurus ak xaalis loolu daal du ñu ni mukk la ci sëriñ Tuubaa bàyyi la ci sëriñ Tuubaa bàyyi du ko fi wax moo na téewul tubaab yi ñu ngi doon gëmloo nit ñi ni sëriñ Tuubaa dafa nekk nit koo xam ne ni dajalekatu alal la dafay exploiter nit ñi ba léegi moom la ñuy wax di gisuloo bu yàgguloo bi sëriñ Saliou Mbacke di bëgg am dëkk tool bi ñuy wooyee xel koom benn journal bind na ci lu nekk ngal ngali ne ko ci ni loolu yàq la état bi jël tool bu àll bu nekk noonu àll bi nun xamuñu ko woon sax di bi ko sëñ Saliou amee rek wolof moom lu nekk la man ba mu des nag wàcc nga for yàlla xam na ni bu ko laalul woon it àll ba kenn du xam lu fay nekk ba àddina tukki waaye ba mu foree rek ñu ne nekkate foofu kat voilà baax na góor naa bi dañ ko na baax na waaye nanu xàmmee nag waxi soppe bu mer akum noonu xam nga jamono boobu am na murit boo xam ne dana critique sax suñ saaliwu ci àll boobu ndax noonu la gëm moom itam waaye bokkuñu critique de mook journal bi bokkuñu critique journal bi moom noonu la murit bi soppe bu mer la soppe bu mer nag akum noonu ñoo bokk kàddu waaye lan moo leen di wuute soppe bu mer bi li mu doon mer di xaat-xaat yi bu dañee mu kontaan waaye noon bi nag li mu doon mer bu dañee it dootul kontaan léeg-léeg nga ni murit dañoo war a jaamu yàlla te bu ñu feesan jàkka yi nga mer murit dañoo war a jàng te bu ñu jàngee nga mer koo koy soppee bu mer bokkut ak nag am seex gi mu jël dal murit yi waaw jàkka yi nangam jàkka yi nangam déedéet bis bu leen ca fekkee day kontaan gis nga waaja ba xel koom delloo ci na mu meloon ciy garab ak naataange ba bisu tey journal bi bindaatagul kon kay lu baax taxu ko woon a jóg àllum daan fooy fooy la woon ku fa jaar ñu rey la tey léegi robinet yaa ngay walangaan dëkk baa ngay dund garab yaa ngay naat mais journal bi tey moo bind bu fekkee réew mi taxoon muy bind. ba tey borom caméra bi itam wanagul réew mi exemple wan leen ni nii lëm réew di mel nii la war a naate te noonu dem nañ ci réew yi jàmbur noo ngi dem Arabie Saoudite amul benn bis. bu nga xam ne télévision bi du nu woo rees du nu woon reeso bi ñuy wooye Assir du nu woon reeso bi ñuy wooye Taïf ci naataange ak tool yu bari ngir bëgg lan foofil beeg borom doole yi jéem a royante ci bay bay àll bi. mais lu tee ñu wone bu fekkee ne nee ñu nañ dellu ci àll bi bay nanu seet ki dàq bay ci nit ñi won li mu bay ndax yàlla borom doole yi ñoom it bay waaye ba léegi ndakaaru maanaam nituk ndakaaru xamagul nu toolub sëñ Saaliwu ba mel ndax média joxagu ko. média bi joxagug ko mën naa am sax boo dee seetaan ci télévision nekk bitim réew léeg-léeg nga gis ci benn loolu damay wax ni jamono bu nekk dug bañ tax murit waaye da di xalaat bu ñu dugal ci bopp nit ñi ba nit gëm ko rek waaye du dara ci ñoom yàlla xam na ne kenn ku ci nekk bëggoon nga lu baax jàpp naa ne bëgg nga lu baax gis nga question boobu dafa maa dellu laaj ni ma ni waaw ban état moo financé jumaa ji ban état moo financé jumaa ji ma ne ko yëgagunu ko de du seen bés du sunu bés mu ree ni ma waaw nu mu demee ci politique ma ne ko xanaa nag téye ci boppam mun ma déedéet kii kay jàppale na état bi ma ne ko ah lu mu jàppalee état bi mun waaw dëkk bu toll nii ku ko defar ci dëkk andi làmp yaa ndox ma mais réew ma mu nekk yaa ko defar xanaa xamuloo ni bu ma tiimee am réew ci avion naan réew mee rafet bâtiment ya laa wax bâtiment ya kon ku ca tabax benn bokk nga ca ñu defar développement réew ma kon ku ci tabaxub dëkk nag ku ci tabaxub dëkk noo def ci développement réew mi xam nga réew mi bu tuddee réew bâtiment yee jóg waaye bu nu màbboon li fi nekk rek dootul tuddum réew ab àll kon ki tabax réew mi dimbali na nit ñi jamono boo xamante gis nga fii nu toog képp ki ko tabax dimbali na réew mi ab loolu mooy liggéey liggéey boobu la Serigne Touba bëggoon a libéré doomu aadama fexe ba murit liggéey fexe ba murit gëm liggéey ak jaamu yàlla loolu rek moo doon waaraateew murit bu njëkk liggéey ak jaamu yàlla ñu yem ca nag di ko jëfe gis nga ñaari baat yooyu li muy tuuti tuuti bu fekkee ne jëf nga ko defar nga diine defar nga itam am réew xam nga nit koo xam ne nii ma ngay xëy ca toolam ma ngay xëy ca jàkkaam wax dëgg yàlla kii dimbali politique kooku moo ko dimbali kon ndekete sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa nee na kenn mënta xettaliku kenn mënta mucc ñu mucc ci yow nga mucc ci nit ñi lu dul da ngaa dellu ci alquran dellu ci sunna bañ àddina waaye boo nekkul foofu coono yi ñëpp ngay doon coono yi ñëpp ngay doon boo gisee coono métti rek mooy gars yi dañoo delluwul ci li sëriñ Tuubaa bindoon sëriñ Tuubaa moom li mu bindoon ña ca nekkan ñëpp noppale maam Thierno Ibrahima dafa toog na fi xiif am ci ba gouvernement bi maanaam ñi nga xam ne ñoo doon état français dem ci moom sàkku ndimbal bu murit nekkoon ne yàcc rek di xaar ndimbal rek ab benn benn aide buy ñëw rek est ce que kon danañu xalaat ni bu ñu demee ci sëriñu Touba boobu wala sëriñu Daaru Muti boobu dana leen mën a dimbali ci pepp mu dul jeex te loolu ñun ñëpp yéen seere ngeen ko sëriñ Touba kon dafa dundoon sunnaam ba noppi digal nag murit yi ñu dund sunna doon ñoo xam ne ni itam li mu bëgg murit doon ko mooy murit dafay wakkiilu ci boroomam te ku wakkiilu ci sa boroom yàlla yoree la lépp wakkun alal ilaahi sa tawakkuli mu'tamidan alayhi duuna kasali nee na yow murit wéeral sa mbir ci yàlla képp te bul tàyyeel bul ragal wattaqihi fi kulli shay'in saabira ala al ibadati bi zikrin zakira nee na saxal tëjal sa bopp ci biir jaamu yàlla bul ca jóg mukk bul ca jóg mukk tey sant borom bi wa laasimi alkitaaba wal xaraa wa faariqi albidaa wal ahwaa boo ca jógee taqool ak alquran taqool ak sunna si yonent bi salallahu alayhi wa sallam sànnil bidaa ca àll ba ak bànneex kii de la sëriñ tuubaa doon defar sëriñ tuubaa nag ba mu waxee lii mag ñépp a meloon noonu amul menn mag ci mag yi toppoon sëriñ tuubaa kenn koo xam ni boo gisee gaa yi xaw a rey seen bopp kenn ku nekk kam ca féeteel mën na caa daal di dee kenn ku ne ma ngi ci kam ca féeteel mën na caa daal di dee boo gisee ka dëkk ca daarul moxti mën naa daal di faatu léegi di ceerni ibra faati ka dëkk feneen noonu ka dëkk feneen noonu lu ko waral mooy defarkat bu mag bee mën a defar moom mi nga xam ne ni kenn ku mu defar xam nga bu defaroon kenn rek dañuy wax ni kii moom da cee da doon tatoone rek ba ba yem ci waaye moom daa defar koñ yi yëpp ña ca Saalum ak ña ca Bawal ak ña ca Kajoor ak ña ca fépp noonu la ñu mel ki nga gis ak ki nga gisul ñoo bokk ni jikko loolu mooy sunna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wenn yoon la amoon wenn yoon woowu ku ci jaar di nga niroog ka ca siin da nga niroog ka ca feneen waaye bu yëf yi wuutee baree rek mooy daa am ku wàcc yoon wa Sëriñ Tuubaa nag ñi mu doon digal du ñu wàcc yoon fu mu leen jaarloo foofa la ñu jaar da leen a wax ni topp leen sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi leen bidaa yi muazziman li urumaatil aarifin xaabila axsaaril baraaya kulla hin bu ngeen ko defee nag ngeen nangu nag gaa yu baax yépp seen i mbir gaa yu baax yépp na ngeen nangu seen i mbir moo tax mag ñi bi ñu fi nekkee ñoom itam ku ñu ne ko baax la rek dañu fay dem di ko siyaare dañu fay dem di ko dimbali dañu fay dem di ko xettali ñoom naka jekk loolu mooy seen gëm-gëm di ko xettali ñoom naka jekk loolu mooy seen gëm-gëm loolu mooy seen gëm-gëm maanaam Sëriñ Tuubaa moom li mu gëmoon mooy defee ne ni moo war a yeral nit ñi njëriñ ndax loolu la doon digle boo demee ci naaju xadaal aji daf ni bul waral àq ci sa bopp maanaam waral yéegal ko ci kaw nit ñi waaye deel waral àq yi ci sa bopp la ñeel nit ñi maanaam nee na jamono bu ne del gëm ni yaa war a jëriñ nit ñi waaye bul gëm ni nit ñee ma war a jëriñ noonu nii la gëmoon moo tax foo gis nituk Serigne Touba moom ma nga gëm ni dëkk bi daf leen a war a dimbali kilifa yi daf leen a war a dimbali da leen a war a fonk di leen siyaare di leen bëgg di leen dimbali lii la leen doon loolu la ñu gëmoon itam nee na boo màggalee gaa yooyu nag boole ca mu diima awraadin bi tarki ruxasi wa kulli tawilin bi doxsi xisasi nee na nga saxal nag ay wérd foo leen fekk ña ngay jaamu yàlla ñoo ngay wérd ñoo ngay sikar ñoo ngay dimbalee bàyyi mboolem taawil yeeg nettali yu doyat yi ñoom ñoo ko gënoon a bañ ñépp kon Sëriñ Tuuba noonu la meloon noonu la doon yare ay gaayam gaayam yi itam noonu la ñuy meloon waaye xam nga ni jëmm joo xam ne ku mu yar baax na ku mu jur baax nga Sëriñ Tuuba rek la ko yàlla may waaw koo xam ne ni ku mu yar baax nga ku mu jur baax nga kii la Sëriñ Tuuba yar mu def lu ñu ne accam nit mësu koo dégg kii la Sëriñ Tuuba jur mu def lu ñu ne accam kenn mësu koo dégg kooku nag kon jagleeg Sëriñ Tuuba la ñooy siggalu xeet te ñoom rek ñoo mën a siggal itam diine yal na ko Sénégal dégg waaye yal na ko Afrique gépp dégg bu ñu déggoon jubluwaayu Cheikh Amadou Bamba rek na gën a romb noonu fii di wéy ndaxte li sëñ Moustapha Diakhaté wax fii léegi moo nu dal nit ku ñuul dafa gëmul boppam sëñ Touba jéem na ci jéem a génne nit ñi waaye gëmuñu même arab yi mu jàng sax gëmloo na nit ñi ni langue wi bëgg ko ngir ni ay ay naar lañu yu xongo waaye daf koo defoon muy wasiila aw yoon ngir xam téeréb yàlla beeg sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye du gëm dara ci lu weex loolu la gëmloo woon nit ñi waaye nun mënunoo fexe ba jóge ci bu ma jàngee France doonu France yi bu ma jàngee Arabie Saoudi daal di doonub naar wala wahabit bu ma jàngee Syrie daal di doonub communiste bu ma jàngee Égypte doon benn waay bu kenn mënta melal noonu rek lañ daan def waaye waa kër sëñ Touba rekk ci mujj loolu mooy yarum mag gis nga mag moom ab yaram boo ci yendoo benn bis kenn dootu ko dindi li sëriñ bi wax fii léegi di ko taggee xale yi nekk Paris soppiku wuñu mënuñoo soppeeku xam nga ña nekk feneen it soppeeku wuñu am na ñu gën a dansi Paris boo demee ci yenn pays arabes yi am na ci ñoo xam ne nii bu dee soppee rek ñoo ko dàq ñëpp boo naan cëpp ci avion bi rek du soppeeku benn nga soppeeku ci idée bi nga nekkan gëm leneen gëm ak wahabi wala nga gëm yeneen waaye waa kër suñ Tuubaa ca mucc daayira yaa ngi fay riir ñoo ca mucc buñ demee Paris muccaat ca ngir lan yar baa dëgër léeg-léeg kenn ci lu niiw nag léeg-léeg kenn ci folatiku waaye dama la naan rek bàyyil ba ngelaw la muur ba ngelaw la upp la boo nee cëpp aéroport Dakar Yoff ni tuuti rek daal di yilif dayiri daanaa ko sama benn mbokk daara moo xam ne bu ma saa vacances bi man lay dalal di dal gaa yi rek doon étudiant bu simple ma ne ko baal naa la de waaye maa ngi lay xaar nag ba nga naan ndox bi rek ba nga ñëw Dakar Yoff daal bu la umpee li ma mën a waat ni mooy léegi nga amub dayiri luñ ci waxoon tey moo ma dàq conférence loolu di liggéeyam léegi loolu mooy liggéeyu Serigne Touba mooy li mu la def daf koo jëmbat ci sa xol gëm loola ko nga nàmp ko nag ci ñaari ween yi waajur yi kenn mënu koo dindi ci nit ñoom kon loolu moo di yar bu rafet ba maam yi jàkkaarloo Sëriñ Tuubaa mu ne leen ragal leen yàlla ragal yàlla googu dafa sartaag ba ci set yi ku ci jéem itam ragal yàlla ba léegi rek fattaqi mawlaaka bi fi'li ma amar bihi wa tarki ma nahaaka bil asar Sëriñ Tuubaa mi ngi wax benn taalibe te moom bu waxee benn taalibe yépp la wax mu ni daal li ma lay digal mooy nga ragal yàlla daal di firi ragal yàlla ragal yàlla mooy def li yàlla tere li mu digle bàyyi li mu tere lii rek mooy ragal yàlla imaamu aljunaydi rahimahullah bi ñu ko laajee lan moo di at taqwa daf ni an laa yajidaka mawlaaka aysu nahaak wala yafqidaka aysu amarak nee na bu la yàlla ñàkk a gis mukk fa mu lay digal waaye bu mu la ñàkk bu mu la fekk mukki fam lay tere nee na lii rek mooy ragal yàlla ñii muy wax nag nga xam ne ñoom ñoo dund sunna menn mbokk dafa ma laaj ci benn conférence li ma lay wax ni nit ñi dañu leen di gëm looloo xam dañuy dem ba gëm ko ñépp gëm nañu ni Tuubaa duñu dund ci sunna ma dem ci benn conférence boo xam ne ni ñoom ñu ngi tudd seen bopp as-salafiyya tur bu rafet fa tabaarakallah benn mbokk di ma présenté ba mu àggalee ci ñuy yëngatu ci wàllu xam-xam la bokk xam nga du ca waaj a teg mun waaw yow mbokk mi waaw yow mi dëkk Touba di dund sunna yéen ñi dëkk Touba di dund sunna mbaa du ngeen am ay problème ma ne ko ah kay problème yu rëy mënuma yu demee nan ma ne ko waaw ndaxte nun sunu sunna bi ñuy dund fii ci ndakaaru dafa bokkut ak ba ñuy dund ñoom ñoom seen sunna bil amal la wa tark dañuy jëf ak a bàyyi nun nag sunu sunna siyu la maanaam tani la tani la ak melo dinaa fexe ba am sikkim bu gudd rek am mbubb su gàtt di wax macha allah ak mbokk mi jeex na doon naa sunni yu ma ne ko li la xayru dalilin ala dalik tey nga ma mas a gis na joxante ñaari loxo nga ni ma sunni yu nga foo ko teg jullee gu ma ñaari rakk ci sa kanam kon xanaa sama sikkim bee tax nga ni ma sunni yu nga gu mel noonu nag ca ñoom gaaya ñoom bu boo ko dundee foofu am problème ñoom du ñu gis nit rek daal di koy am melo wuñ ko melowoo xam nga ñi ñëpp tey ku ci génn réew mi bu ñu la laajee Touba nga wax ni Touba mel cay bidaa ak i xuraafaat te mosulaa joggi Touba ndax loolu nituk sunna war na koo def nituk sunna lu muy bind wala mu di ko wax da cay teg bëtam mais bu ca tegul bëtam waru koo bind loolu mooy sunna menn mag mu baax ci niti sunna Serigne Touba yi bi mu fi jógee yàggul Seex Modou Khalifa Niang mu gede dama faa dem di ko laaj ci Serigne Touba te li ma koy laaj léeg-léeg ma am nettali bu ma nettali laajaat ko bu ngir mu gën ma koy wéralal waaye xam nga lu muy wax lu nettali bi siiw siiw siiw dafa ma naan man fekkewuma ko nga xam ne ni kon moom li mu gëm mooy du nettali lu mu fekkewul kooku nekkete mooy sunni yu sunni yu mooy koo xam ne nii du wax lu ko leerul day waaxu ba teg bët bu waaxoo ba teg bët nag soog a wax waaye yow Touba nii la ñuy mel Touba nii la ñuy mel te waaja bu la nee fu Touba féete nga ne dégg naa de boori Mbàkke la nekk ñun sénégalais yëpp looloo nu dal xam nañu Paris ba mu jeex nun ñu jàng tubaab ñu jàng arab xam nañu arabi saudi xam Assisi ak Bani Malik ak quartier yi benn bu ñu la ci laaj boo ko xamulee ruus nga dëkk Sénégal gi ñu ne la waaye yow jàmbaar yow foo dëkk mu ne man de maa ngi dëkk fële ca boori Mbaadaan mais Mbaadaan fan la nekk ah te kat nee nga intellectuel nga boo xam ne xas nga nar ngaa yori réew mi waaye yor loo xamul nag nan la réew may doxe te yow am na dëkk boo xamul ci réew mi xam nga politicien wërta am dëkk bu mu xamul déedéet yow dañu lay bëgg a dénk li lay dénk boo ko xamul nu ñu koy dénki mais xamal réew meeg làkk wi faaw nga xam ko loolu danoo manqué woon boo gisee magi Serigne Touba yi bokkoon na ci liggéey bi ñu leen doon liggéey Serigne Touba da leen doon formé ci ñuy wax seen làkku bopp ñu defee ne daa bañam tubaab rek waaye daa bëgg ñu xam li ñu doon xam nga nit ku déggulu làkkam ku mu waxal mu nax la bare na ay ay ay procès yoo xam ne gaa yaa ngi koy def ca Paris ñenn ñaa ngi koy def ca ca naar ya waaye ay nax képp la lu tax mooy dangaa déggul làng wa nit nag bu déggulu làng wooy moom da ciy gaaw discuter bi yëpp wooy ngay daal di jëkkante rek dem ca bu dee naar ba it naam rek lay daal di dóor naam joo xamagul lu mu wax nag wóorul fekk làng waa leerul comme nag làng wi leerul bàyyi ko te wax li la leer moo indi sunu coow boo gisee ci xale yi jóge ci école yi lu baree bari ñu tuddee ko bida lu baree bari ñu tuddee ko nangam ngir lan dégguñu làkk wi ñu ko jële arab a ko wax te ñoom dégguñu arab waaye am na ci baat bu nga xam ne ni bu ñu la ko tekkiloon ci wolof yi nga dégg dootoo ca wax dara dinaa koy wax toujours ci baat yi kull bi daati nag yu demee noonu boole ci gàmmoog yooyu man ko boo déggoon wolof boo déggoon arab ni nga dégg wolof kull du la jaaxal nga xam ne bis bu nekkee nga ne ñëpp ñëw nañu saal bi sa gaay bu ñu fi jógee dañ naan kenn desul looloy kull danga naan kenn desul waaye kenn desul jooju boo ko waxee ku déggul wala mun la ah non man démb woon waaye xam na ni du ko wax ndax daa dégg làkk wi waaye kull yi boo déggoon arab ñu dégg arab ñoom boo leen ca génnilee lu ca bokkul ñu nangu dañuy nangu ndax kull loo xamante